Pape Amadou Sidibé ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di leen nuyu. yow yaay administrateur général fondation Origine Sénégal fruits et légumes am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi. waaw man tam maa ngi kontaan lool jannoo ak yéen di waxtaan ak yéen ci matinal bi. Mhm. alors ñu door ak secteur horticole bi euh, tey euh, ci mbas mi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund ba baax léegi am na juróomi weer naka la secteur boobu taxawee ndax am na ci njeexital moom mbas mi. bi dafa laal secteur yëpp ba nga xam ne bii doole bi nga xam ne bii secteur horticole daan naka am si jamono si wàllum production ak wàllum yëngatu-yëngatu am na si njeexital ndax wàññeeku na si nu nu ko mën a seetloo wàññeeku na si maanaam téeméer boo jël daal ne na ñaar fukki ak juróom dañ na si alors euh, ci filière yi nekk ci secteur bi yan la ñu mun a jàpp ne ñoom la mbas mi gën a gàllankoor. ñu nu jàpp ni mbas mi gën na leen sonal moo di ñuy jëm si wàllu exportation ndax wàllu exportation ku ko wax rek wax qualité tudd qualité te soo tuddee qualité tudd ay matuwaay yu bare yoo xam ne yi dafa yokk si yi nu daan faral di jël ngir mun a moytu mbas mi. ba nga xam ne bii produit yi fay génn war a jëm bitim réew dina nekk maanaam produit yoo xam ne yu mucc ayib la. ñu ko doon natt tey ci wàllu koom euh, ñaata la ñu mun a xayma perte yi nga xam ne euh, mbas mi jur na ko ci secteur bi euh, jëm ci wàllu exportation bi. su ñu ko doon natt si wàllum koom du ñu ko mun a booleendoo yëpp ndax exportation bi jamono bu nekk ak produit yoo xam ne yi ñoom ñoo war a génn di dem. bi comme bi di dikk daanaka fekk na exportation wu yi ñuy wax contre saison de jeex ndax mois de mars la donc produit bi mu gën a laal fi mu toll nii moo di mango bi ñuy exporté mango bi nag suñ ko seetloo wàññi na ko bu baax a baax a baax ndax charge yi ak frais yi nga xam ne nit ñi dañu koy def ngir jot si dafa yokku charge yi ak frais yi nga xam ne nit ñi dañu koy def pour conditionner ko pour ñoŋal mango bi ba nga xam ne bii ñu ko mën a yóbbu bitim réew aussi dafa yokku donc euh, mun nañu wax ni daanaka su doon ñett daal benn bi wàññeeku na si mu des ñaari. ci wàllu koppar ñu mën ko xayma ci ñaata à peu près. Euh, si wàllu koppar tey suñu ko doon xool lu mu bon bon war mat lu toll fukki milliards ak juróom wala su ko ëppul si li mun a wàññeeku mm. si li nu waroon a am si mango bi alors ku wax exportation sa xel dafay dem ci qualité aussi est-ce que Sénégal ci wàllu woowu def na ci ay jéego ndax ay at ci ginnaaw ñu ngi doon ñaawlu qualité yenn production yi ba ci léegi sax euh, lu mel ne pomme de terre ak soble ba tey nit ñi ñu ngi wéy di euh, ñaawlu xëy na ñàkk qualité bi bu ñu ko méngalee ak euh, yeneen produit waaw léegi si wàllu mbay mm, dër bi ay progrès yu rëy yoo xam ni yi ginnaaw bi ministère agriculture ak développement rural équipement rural joxe ay tetal dox nañu ko si wàllu formation si wàllu accompagnement vraiment def nañ si ay progrès yu am solo ba nga xam ni bii daal fépp si réew mi nit ñi amélioré nañu ba nga xam ni bii yooyu produit daanaka amatul jafe-jafe te li ci gën ne neex mooy autosuffisance bi nga si ñaari produits yi nga lim dañu ko dab daanaka na nañu ko ba nga xam ne bii suñu si farloo tuuti rek daanu leen mun exporter mooy li mel na pombiteer ak soble mm-hmm. léegi si wàllu amélioration bi itinéraire problème itinéraire technique la maanaam jàngal nit ñi nanu koy bayee nanu koy récolter na nanu koy conditionner nanu koy garder te loolu itam ñu ngi si taxaw bu baax a baax a baax si wàllum mbayum dër bi aussi bien si li jëm si li ñuy jëfandikoo si biir réew mi que li ñuy yóbbu aussi di ko jaay bitim réew ndax euh, Sénégal waa bitim réew wóolu nañu ko ba jox un euh, certain nombre d' agrément yoo xam ne yi tey si tey produit bu jógee Sénégal a yi dañ lay wóolu ni bii produit bu sell la produit bu am conservation la te loolu liggéey bi ñuy def si njit si njëlbeen ji moo ko waral si tànn bi si sellaay bi si respecter norme yi hmm. ay jafe-jafe nag day des toujours wante daal si nu ko mën a tënk am na progrès yu baax a baax a baax yoo xam ni def nañu ko si hmm. wàllu pomme de terre bi nga ne jot nañu ci autosuffisance maanaam li askan wi soxla dañuy produire lu ko ëpp waaw su mu toll nii li pomme de terre bi li ñu si soxla si biir réew mi dañuy jot lu ko ëpp am na fi ay société yu mag yoo xam ne ay waa bitim réew ñoo ko fi sañ mais aussi baykatu réew mi si seen bopp ñu ngi si góorgóorlu bu baax a baax a baax ba nga xam ne sax yenn béréb yi nga xam ne nit ñi daanuñu fa bay pomme de terre si réew mi ñu nga ko fay bay lu yaatoo yaatu te vraiment mu nekk pomme de terre de qualité boo xam ne bi tax na ba ñu dépassé soixante dix mille tonne de production annuelle yi nu daan yi nga xam ne yi am nañu ko te li Sénégal di consommer eggagul foofu. Mm. lu soxal soble bi. lu soxal soble bi itam li ñuy bay si Sénégal ëpp na fuuf li ñu soxla li des ci problème bi mooy récolte ko ci anam yi mu gën hmm. ak béréb yu ñu ko mën a denc ba nga xam ne at mi yëpp suñu ko soxlaa daana suñu jot ci anam yu waaye soble bi nekk ci marché bi tey daanaka mënoo ko denc juróomi fan te amuloo ci jafe-jafe non ça dépend ci fu mu jógee rek hmm. ndax soble bu tooy moom kenn mënu ko denc wante soble bu wow hmm. ci ni ñu koy jàngale nit ñi bàyyi ko ba mu ñor ci ndeyam woowal ko ferlil ko dugal ko si yenn conditions yi saako yeeg yooyu. Mm. muy jën nekk fu feex daan ko mën a denc ba juróom benn weer te am na ñoo xam ne ñii ñu ngi koy def si Sénégal nii. d'accord alors ñu ñëw ci jafe yi nga xam ne euh, yenn baykat yi ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci ndox mi ndax euh, xew-xew bi ngeen fi mujjee amal dégg nañu loo ñu bëri di ñaxtu euh, ci ndox mi ak xëy na tolof tolof yi ñuy am pour mun caa jot ngir amal seen liggéey ni mu waree. waaw ndox dafa bokk si loo xam ne lii si ruu mbay la bokk maanaam ndox fu mu amul mbay mënu fa am ba nga xam ne suñu bëggoon wax dëgg yàlla mbay mi jàppandi ni nu ko yaakaaree si Sénégal nguur gi daf si taxaw ba nga xam ne bii fépp fu baykat soxla ndox si réew mi dina fa mën a àgg biir loolu ginnaaw ni ñu koy jàmbate fan yi si ginnaaw ministre de l'agriculture et de l'équipement rural ak ministre des collectivités territoriales territoriales wax nanu ak béykat yi àddina yëpp di ko seede que ni daanu jokkoo ak seen euh, homologue bi nga xam ne bii moo yor wàllu ndox bi ba li jëm si wàllu forage yu nekk caaro yi nga xam ne ndox boobu jëriñul kenn te lu mat quinze mille mètres cubes d'eau dañ koy tuuri bis bu nekk géej ak forage yi nekk ber ci land te itam ñu juróom-ñetti forage te ñaar rek di si dox ndox moomu yëpp daanu fexe nu nu ko fexe ba béykat yi si zone des Niayes mun si jot comme ça ñu mën a développer seen production améliorer aussi seen ay verger ak seen i périmètre hmm. alors ñu ñëw ci fondation origine Sénégal fruits et légumes euh, nga xam ne fondation peut-être wax ñu lan mooy seen mission ak euh, seen ay projet ak aussi bi ñu euh, ko créé 2010 ba tey lan ngeen fi jot def loo xam ne mën nañ ci teg bët. waaw fondation origine Sénégal fruits et légumes comme ni ko waxee dañu ko créé en pour mu gunge. màggaayu secteur horticole exportation bu Sénégal ñu reconnaître ko aussi utilité publique moom li koy jë tax jóg moo di mu jàppale lu ñuy wax partenariat lëkkalikoo publique ak privé ba pare di def collaboration stratégique boo xam ne bii diggante acteur yëpp lay mun a doon di si def ay action appui ak euh, développement renforcement pour compétitivité croissance grappe horticole bu Sénégal fondation origine Sénégal bi ñu ko créé ba léegi mun nu wax ne ay domaines d'intervention moom mooy taxawal plateforme publique privée yi ñu si daje di waxtaan di liggéey di tra di lépp loo xam ne lii day dimbale compétitivité origine Sénégal bi fruits et légumes moom mooy def aussi collaboration boo xam ne nii day nekk toujours rek day nekk collaboration bu sax la diggante opérateur privé yi ak industrie secteur horticole ak organisation producteurs yi ak institution de soutien yi ak gouvernement bi ak bailleur de fonds yi kon fondation bi aussi mooy gérer patrimoine bi nga xam ne bii mooy infrastructure yi maanaam bërëb yi nu tabax yoo xam ni dañu fay sàmm lépp loo xam ne nii suñu récolter ba pare foofu la ñu ko war a liggéeyee ba nga xam ne nii daanu ko ñoŋal. Mm-hmm. fondation bi nag si mujjantal aussi dina def liggéey bu am solo si élaboration si maanaam ay téere yoo xam ni ay si dañu si jàngale dañu si joxe ay xibaar dañu si informer nit ñi ba nga xam ne bii lépp lu jëm si. lu bees lu xew ak nu nu war a liggéeyee ba nga xam ne mii mbayum dër mi dina mën a ñoŋ daal ñu def ko. Hmm. ci kilifteefu ministère de l' agriculture bu Sénégal ngeen nekk. waaw moom mooy sunu kilifa ministère de l' agriculture et de l' équipement rural ndax ñun institution privée la ñu wante reconnue d' publique. Hmm. donc lépp lu ñuy dox dañu koy dox ci kaw orientation yi nga xam ne yi teetal yi nga xam ne yi moom la ministère de l' agriculture et de l' équipement rural joxe ñun nag ñu koy jëfee directement sur le terrain di ko appliquer comme toutes les autres directions nationales. d' accord alors ci li ngeen jot a def ci Sénégal bi ngeen taxawee ba léegi lan la ñu ci mën a jàpp. waaw si li ñu taxawee ci Sénégal ba léegi li ñu jël def bare na wante li ñu si mën a wax rek mooy. maanaam euh, gestion infrastructure yi ma la wax nga xam ne loolu moom valeur ajoutée bi ak lépp lu ñuy exporté si bitim réew day jaar si kóor si béréb yi nga xam ne fondation origine Sénégal moo ko géré mooy formation yi mooy appui yi mooy aussi accompagnement producteurs yi si développement marché yi maanaam foire yi maanaam rencontre ak partenariat yi exposition yi et cetera et cetera fondation bi daal dina si tënk li ñu mën a wax daal bi nu ko sancee ba tey mi ngi gunge exportateurs yi ba nga xam ne bii filière horticole d'exportation yi en général bu si nekk deux mille dix ba léegi ful na la lu mu bon bon ñeent ba juróomi yoon. d'accord alors euh, yéen euh, bokk na aussi ci taxawaay bi ngeen am wax nga ko sànq mooy fexe partenariat public privé di am waaye itam euh, lëkkaloo bu am solo jëm ci ñi nga xam ne ñoo sekk secteur bi te mën a weccoonte ay xalaat loolu naka ngeen koy réussir ak aussi lan moo mën a nekk njeexital bi ci mbayum dër bi. waaw loolu soo gisee partenariat public privé boobu dañu teg li ñuy wax dañuy animer. dañuy maanaam animé ay plateforme yoo xam ni plateforme yu ñuy concertation la public privé plateforme yooyu day day tax euh, collaboration bi sax diggante opérateurs yi privé yi ak institution yëpp yu mu munti doon ak organisation de producteur yi ak gouvernement bi donc euh, loolu soo ko gisee ñu def ko dafa nekk loo xam ne lii day permettre fondation bi mu mun a jot si ay financement yoo xam ne opérateurs yi ñoom si seen bopp ñu si woon a jot mais fondation bi su si jotee ñoom la koy delloo ñu delloo leen ko si woyefal itam boo xam ne bii mm. non seulement contexte Covid 19 bi tax na mu gën a woyef mais aussi négociation yi ñuy am ak bailleur de fonds yi dina permettre mu woyof ba nga xam ne bii ñoom dañu si gis seen bopp bu baax a baax pour mën a développer seen ay activités. Mhm. alors justement laaj bu jibagul mooy euh, Covid bi bi mu ñëwee wax nga ko sànq ci dox dorteel gi am na lu bëri lu mu gàllankoor ci liggéey bi euh, au niveau national teg nañu benn plan de résilience ci secteur orticole bi lan ngeen wàcc wala lan ngeen di def ngir dimbale acteurs yi ñu xëy na génn ci jafe-jafe yi mbas mi indi. waaw euh, ci secteur ministère de l' agriculture et de l' équipement rural joxe na si ay teetal yu bu leer yoo xam ne yi mooy jàppale acteurs yi pour ñu mën a génn si situation bu jafe bi ñu nekk nii si kaw loolu ay ndimbali yu bare taxaw yoo xam ne yi ndimbal d' abord si niveau projet yi contrepartie yi nga xam ne yi moom la acteurs yi daan joxe si niveau fondation bi contrepartie yooyu dafa wàññeeku bu baax a baax taux mais aussi gouvernement bi ministère bi directement am na appui mu def si euh, niveau producteurs yi yoo xam ne yi jàppale na leen si wàllu jiw wàllu produit wala wàllu engrais ba nga xam ne ci woyofal na leen coono bi ñuy jànkonteel si jamono yi alors beneen jafe-jafe boo xam ni daanaka war na réew mi mooy lu aju ci wàllum suuf euh, gis nañu ne pratiquement gox yu bëri tey boo fa demee da nga fay fekk coowal suuf est-ce que am na ci producteurs yi ñu mu laal ñoo xam ni euh, def na njeexital aussi ci secteur bi di mbayum tër bi wala secteur horticole. wàllum suuf bi moom coow li la partout nit ñaa ngi si wax wante dama bëgg si njëlbeen bi ñu xam ne wàllum suuf bi jëm si problème horticole moom ñëpp dañu war a xam ni mbayum dër. bokkul ak benn mbay bu euh, bi ñuy tàmm di def Sénégal. Hmm. ndax mbayum da mën a indi ba fukki yoon lu ëpp mbayum nawet bi si benn surface bu tolloo. donc suñu jàppee si loolu rek. mooy li ñuy wax vraiment njëriñ bi si nekk ak lu mu mën a indi si koom-koom bu gaaw si réew mi. Hmm. léegi wàllum suuf bi si wàllum mbayum dër bi en général du ma sax exportation wàllu secteur horticole bi. Hmm. vraiment dafa nekk loo xam ne li contrainte globale la ñu ko war xoole hmm. ndax sa njëlbeen nga zone ñaay bi moo daan fi nga xam ne fii moo daan fournir Sénégal moo daan tax Sénégal du jot si lu lujum li gën a bare foofu la daan jóge hmm. Hmm. wante nag seetlu nañu ni dëkkuwaay yeeg pollution beeg enfin lu ñuy wax pression démographique beeg euh, urbanisation bi dem na ba nga xam ne zone ñaay bi moom daanaka lu bare desatu si te fi rek ay at moom amatuñu yaakaar ne waa mbay dër fu bare dina fa mën a jëm hmm. nit ñi ñu ngi continuer di soxla lu ñu dunde donc faaw nit ñi jot si suuf si si yeneen wàllu réew mi nga xam ne xëy na sax xamuñu woon mbayum dër wala demeew fa woon noonu ba nga xam ne bii production yi dina mën a continuer dina mën a nekk de qualité te réew mi dina si mën a gis boppam. Hmm. lépp daal ci biir concertation la war a mën a nekk mais yaakaar naa ni problème bi au niveau du secteur horticole si boppam. Hmm. demeewul noonu ba nga xam ne di dina mën a tënk problème foncier dina mën a tënk production horticole bi. Hmm. jërëjëf euh, Pape Amadou Sidibé ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay administrateur général bu fondation Origine Sénégal fruits et légumes amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. Euh, maa ngi leen di remercier di leen gërëm